alhamdu lillahi alkarimi zilminan ala shigali bi furodin wa sunan shakartuhu li annahu xasaaxani li watanin bi nafa maaqani waxaadani sheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokk yi nit seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyu fii ci seen jataay bii di garabu Touba shajaru Touba ci assalaami point com ngeen di ci ànd ak seen mbokk Gana Messere Maxtaar ñu bëgg ci ànd ak yéen ci ay tomb yoo xam ne dañu koy laaye biirante incha allah ngir mu mën a nekk ab yóbbal boo xam ne danañ ko mën di yóbbaloo mu jëm ci dund ku tedd ki Cheikhul Khadim jëm ci ay ndénkaaneem jëm ci ñu baax ñi nga xam ne yi ñoo nekkoon ci ak cappaaram waaye jëm ci ak njabootam lu tax nu tudde ko garabu Tuuba mooy day garab goo xam ne dafa euh, naat am meññet nekk garab goo xam ne it dafa sedd ak kër te neexi doom bu fekkee ne waxtaane nañ bàngaas yi waxtaane buut bi waxtaane car yi ak xob yi loolu lañuy boole mu nekk garab gi garabu tuubaa nag lu am cosaan la ndax jëmmi shajaratu tuuba garabug texe la gu nekk ci biir aljanna tuuba googu it ñëw ci alquran ñu ko borom bi subhanahu wa taala waxee ne alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa xusna maab kon gaa yi nga xam ne ñooy jëf lu baax te gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala ñooña it ñooy dëkkee tuubaa te moo di aljanna ñooña it kon mën nañ caa tànn ñi nga xam ne jaayante woon na sëriñ bi gaa yu baax yi nga xam ne doon nañ liggéey ci keppaaram te jaare ko ci yoonam mu mel ni it ñaanoon na borom bi subhaanahu wa ab dëkk dëkk boobu noonu la tudd muy tuubaa tam ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa dëkk bi mel ni aw turandoom nga xam ne wajal ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaay xayri man abad kon ñaan na borom bi subhaanahu wa mu defal ko pàkkam bii di tuuba mu mel ni pàkk bale ci aljanna garabu aljanna nag ñu di ko tudde shajaratu tuuba garab la goog tiim na aljanna yépp nga xam ne fenn fu ci nekk benn wànqaas ma nga fa di garab goo xam ne it euh, bu xob yi riisoo moo dàq ngalam gooy dégg ci àdduna ker it aw fas mënu koo dox wala mu daw ko ci téeméeri lu tax ñu duppee ko loolu mooy xam ne sëriñ bi noonu la toll ci yaatu noonu la toll it ci ngëneel noonu la toll it ci kawe te biir garab gi lenn nekk mën na caa mañ meññeet mu nekk mën na caa génne ker gay mënees na caa jariñoo te xob yi day faj ñu ki reen yi di faje mooy sëriñ bi ni léppam nekk ngëneel ni léppam nekk tawféex tomb bu ñu ci tànn tey nag waxtaane ko bu ëllëgee ñu tànn beneen tomb séq koo yéen waxtaane ko ngir mu nekk njariñ loo xam daf ñuy yóbbal yóbbal boo xam daf ñuy njariñ kon sëriñ bi ñuy bëgg a waxtaane te tudde ko noonu ñu ko tudde ña ko jiitu woon di ay bokk ci moom di ay maam ca la tàbbi ñi ko mel ñi di ay way jur ca la ñuy tàbbi jëmmi boppam ji ca loolu lay tàbbi lu tax ñuy def jataay bi nag mooy diggante bu néew la waaye mu nekk diggante boo xam ne danañ ci man di fàttalante man di ci yóbbalante kenn ku ci nekk man cee jariñ sunu biir ñun ñëpp ndax Serigne Touba dañuy nekk kon ci waajtaay wi moom day njariñ ndax moo waxal boppam ne nafaani wa biyee fa faawul wara yàlla jariñ na ma te ci man la nit ñi jariñoo kon moom njariñ la loo xam ne boroom bi subhaanahu wa taala da ko wàcce ci kaw suuf waaye ngir jaam ñi man koo jariñoo waaye it suñ boroom ni ko def muy njariñ jariñ ko ba nopp it teewul moom dafa ñaanaat boroomam na ko wan kamis la misla seen karama sama njariñ it nanga ko def mu mel ni ak taw waxuma barig taw ndox mi tooy geeg tooyal fu ne waaye li juddoo ci ndox ci ay njariñ ak li juddoo ci ay dund ak li jund ci ay tawfiq mu ñaan boroomam mu def loolu njariñam waaye ñaanoon boroomam it wan fian bi yel waroo yow yàlla jariñal ci man nit ñi kon garab gi bi ko yàlla suuxatee samp ko def ko muy garabu njariñ moom it daa bëgg a njariñe te am njariñ te mën a jariñe waaye mu waxoon ne wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaawu ni fil barri wal baxri sa nafain bi laa darari yàlla dana ma dimbale mbindeef yi dana ma topp ci géej gi ak ci jéeri ji mooy borom njariñ loo xam ne it dara ci ay lor lu ci nekk njariñ loolu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ne alxalqu iyaalullaa ahabuhum ilayya anfaahum mbindeef yi ñoo njabootu yàlla yàlla nee na ku ma ci gënal mooy kii leen gën a jariñ kon nag moom sëriñ bi ñaan gi mu ñaan boroomam mu nekk njariñ li mën a jariñe looloo tax mu nekk kon ki gënal yàlla ndax ni ko alayhi salaatu wasalaam waxe waaye it mu wax ba tey moom sëriñ bi wax ne suñu boroom defal na ma njariñ lu dul jeex te ñépp a ci xaj moo tax am na ku ko doon tagg di wax ne cheyxun tajarada lil ulya fa daydanuhu naful wara fi bawaadihi wa amsaar waxoon ne sëñ bi de ab sang la bu beru boo xam ne boo ko doon misaal ñu lay laaj luy jikkoom lan mooy meloom danga naan njariñ mbindéef yi njariñ mbindéef yi rek kon mooy mooy sëriñ bi waxoon na it ne kon njariñ li muy jariñ te du lor moo tax Cheikh Sidi mas naa wax ne sëñ Tuubaa de bu fekkoon ne am na ayib ayibam weesuwul jaamu yàlla ak jariñ njariñ mbindéef yi ci suba yi ak ci ngoon yi kon loolu lépp day tàbbi ci biir euh, njariñ lu rëy loolu waaye njariñam loolu nag dafa yaatu ba jamono jëpp àdduna bépp man cee jariñu ndax dafa ànd ak yërmande la ko bindkat ba ne woon alam takun rahmatan lil xalqi arsalaha rabbul anaami fa ama bayna axtaarin yow de dafa mel ni bi la yàlla y wàccee jamono yow Sëriñ Tuuba daf laa def na ngay daggatu yërmande woo xam ne daj na ñëpp moo tax nag ginnaaw moom mooy njariñ te mooy jariñe bi muy woo nit ñiit ci njariñ leen ak jariñ leen rek la leen la leen jëme ca la leen di yóbbu kon nag ñaan googu mu doon ñaan boroomam te léppam di njariñ ci la ko yàlla wàcce ci kaw suuf ngir àdduna bépp man ko jariñoo àdduna bépp moo nekk seen xewal nga ne yàlla loolu ko borom bi def nag moom Serigne Touba moo tax mu yaatu bu dee bàngaas xam-xam bu dee bàngaasu njariñ bu dee tab bu dee ragal yàlla bu dee sàmm bu dee màndu bu dee jub bu dee lawet bu dee dëddu bu dee dëggu lu ci nekk dafa jàpp ci biir jëmm ju sell jooju yemul ci moom mu ne ci moom waaye da koy defaat ci mboolem ñëppam loolu moo tax mu nekk lu yaatu nekk loo xam ne it lu lu lu daj jamono la loolu moo tax Serigne moomu jariñ gi muy jariñ bi yi ci ganwet wet la koy jaare ba mu jógee laxas rek dane borom bi asbaxta xaali bilarti xaali bihdi ayaali bila bukaay nan da yàlla yéwénal na sama lépp jëkk may laxas di wuti dara kon nag yow yàlla borom bi subhaanahu wa taala jubalal ci man sama njaboot lu dul ñuy jooy kon bu ñu am benn fitna bu ñu am benn coono waaye li ñuy wut di ko bëgg nañu ko am loolu kon day wone ba tey bu ñu lay misaal li ngay bëgg a jël lu mu doon waaye it ay keppaaram yaatu ndax zilaaliya safaha mu jiiru mu sasiru Sëriñ Tuubaa nee na samay keppaar landi samay keppaar féex na samay keppaar yaatu na ci dara daraja yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moo ko sellal moom mi nga xam ne moo fekk dëgg ak caaxaan mu tàggale leen moom mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo fekk yoonu jub mu teg ca nit ñi kooka moo ràcc samay garab moo yaatal sama garab moo yaatal samay ëtt ba lépp nekk lu yaatoo yaatu ba nekk lu mën a jariñ nit ñi moo taxoon it daana wax ne la wal taj'alanna sa'yaka naf'al muslimin waxul moom ci boppam sax mu di ko jëf waaye bëgg jariñ nit ñi tax mu daan wax ne rikk waaye yow jullit bi yow taalibe bi na ngay def say jëf muy luy jariñ nit ñi kon day bëgg nga delluwaat ci biir njariñ loolu moo tax bi muy woote nag bëgg ñépp ñëw jariñoo keppaar gu fiix gu set gii keppaar gu neex gii dalee na woo ci tur woo xam ne dafa mat wax ne yaa ahla bar yaa ahla baxri onjo lil barri baxri saqaay ñëw leen wuy si ci fan ngeen jëm si mi géeju ngëneel géeju tabeel gi nga xam ne moom laa dëgmal man falaa jublu jëm fa te ku ma àndal ku nekk falaa la jëme loola yi moo tax mu xam ne ku bëgg a toog ci keppaaru àdduna gi ne ci fiix ak jàmm bu yomal xiyaamee nga amaat keppaar googee di aljanna di sajara tuuba sëriñ bi na yàlla ma diggal ne ku bëgg yooya fa man araadal xayra fii kiltay daarayni falyalus bi ku bëgg tey jii toog ci keppaar gi naan ci ndox mi jariñoo keppaar gi jariñoo doom yeeg meññeteef mi bu yomal xiyaamee nga jariñoowaat ko falyalus bi kaay jox ma sa bopp kaay ànd ak man kon ba tey njariñ loolu mu ëmb mat googu mu mat moo tax mu woon nit ñi ne leen ñëw leen ngeen ma jariñ leen ndax mooy tax nga mën a xam li bàyyi ci biir wàngaas ak li bàyyi ci biir garab gi lu mu làmb alhamdu lillahi alkarimi zilminan ala shigali bi furodin wa sunan li annahu xasaaxani li watanin bi nafa maaqani